Pape Bouba Diop xam naa ko bu baax dafa nekkoon doomu Tëngéej dëkk HLM am naa sama petit frère boo xam ne xaritam la woon daan na ànd ak moom ba noppi Pape Bouba danoo nekk di voyage yi pendant ay années yu bëri depuis deux mille 2002 ba Sénégal qualifié coupe du monde ak ba euh, coupe du monde 2002 ñu ñu ànd avant 2002 éliminatoire coupe d'Afrique yeeg coupe du monde. ba ni Sénégal qualifié coupe d'Afrique coupe du monde ñu ànd di voyage intérieur du pays extérieur du pays fu ne nañ fa di dem mais dafa nekkoon waaye joo xamni dafa gëm limi muy ba discipline na teey na na gëm limi def and ak volonté dal parce que Pape Bouba dafay koo xam ne comme ni est-ce que Sénégal dafa qualifié coupe du monde le premier euh, match Sénégal coupe du monde bi ba bu njëkk duggal dugal Pape Bouba Diop moo ko contre France muy lo xamni euh, ce mooy premier bii Sénégal bi ñu bi marqué match de ouverture mu dóor bii ba moo ko marqué Pape Bouba Diop muy lo xam da fay nabu Sénégal yépp di ndamu monde di ndamu Afrique parce que li ki lu doon wax Afrique bi Sénégal dóoree France champion d'Afrique champion du monde nga gagné ko euh, premier match kooku da fay lo ne sa Pape Bouba Diop mo dugaloon bii bi Pape Bouba Diop dafay koo xam ne dafa calme dal na ànd ak tay yarou li ñu mën wax ci mom yépp dal euh, buñ ko topé di wax day fess xol man duma mëna continuer di wax ci mom lepp parce que bu yàggee xol bi day toy